daan na ko seex bës ma bàyyi ñang nee ma di ko bës di bam ba egsi ci bay jege bay jege bopp bi mu ne dama bëgg fi na ah seex ma ne faal mu fi jógee na ñëpp ñang sama xel na yar am ci dem nee ma di jooy nee na fekk maa ko tiim nee fi ma koy fi may dal seex Ibra Fall mu ma ah, seex ñang mbaa da ngay jooy mu waaw ah dama bëgg waxtaan yow ngay jooy boo jooyee kat duñ waxtaan boo jooyee kat doom duñ waxtaan cheikh dama bëgg su fi jógee na ñëpp topp Moustapha Fall sama lal bii man Ibra Fall ku mag na ngeen ma ko toppal lu manqué moom danaa dugg ci biir motale ko loola waxoon na ko waxoon na ko bu yàgg loola mag ñi nettali Baye Abdou Niang wax na ak euh, mag ñi nga xam ne fekke woon nañ Cheikh Ibra tàggatoo ak ñoom ndekete ne suuti nag la lii nag ma cay teg Baye Moustapha Seck moo ma ko nettali waaye maa ngi ko dégg ci bay bay bay cheikh ñang bu géeb bay am ñang mu bay cheikh ñang bu géeb moo ma ko wax li waaye lii ma ciy teg nag bàyyi Moustapha Seck moo ma ko nettal nee na cheikh Mouhamadou Bachir daal di yegg mu naa kooku bay cheikh ñang na ko sëriñ Bachiru day nuyoo mu daal di mu daal di waajal lam koy nuyoo ndax Cheikh Ibra Fall daawul jox doomi sëñ Tuubaa lu day wajal addiya bala mu koy jox loxo bi mu tàgg bi mu waxtaanee moom pare sëñ Bachir daal di daal di daal di tàggatoo ak moom mu ne ah, Bachir fanaanal fanaanal ndax sa baay damaa diggoon ngan da daa di daa di ah te kat àpp naa ko ci soxna may caat ma te man kat jug naa ba noppi ah ma ne fanaanal sa baay damaa diggoon ngan àpp naa ko ba ci soxna may caat ma te man kat jug naa ba noppi eh, wax nañ ne Cheikh Cheikh Mouhamadou Bachir daa di daa di daa di joxe ngant nga la waroon defee daa di mujj fanaan nga xam ne léegi mujj daa di mujj fanaan nag ndekete booba caay wa sëñ Bachir mënu caa ñàkk ndax moom moo ci indi Tuubaa Eh, Cheikh Ibra Fall teg te ne ko soo fanaanee danaa la booleeg mbooloo fanaanal boo fanaanee danaa la booleeg mbooloo waaye mbooloo mi la ma bàyyi Moustapha Seck nee na ma yegg si nañ ci <laughs> nañ ci mbooloo mi fii ñu fii jamono toll fi ne yegg si nañ ci loolee léegi nag ba ba loola amee sëñ Modou Moustapha bi bi saam seex nag wàcce sëñ Bassirou daal di koy wax sëñ Modou Moustapha mu ne ko nañ ko indi Touba kon ma fàttali ne si Cheikh Mouhamadou Bachir moo indi ku tedd ki Touba 1927 keroog bi mu làqoo ci njëriñ ba yàlla dogal sëñ Modou Moussa ñëw ba xam ne dem nga am na bañ waajalee oto oto ba ko war a yóbbu Touba muy euh, marqué defe naa su ma juum marqué dalaay te sëñ euh, sëñ Balla Coro moomoon ko duut Cissé di doon sëfooru sëñ Balla Coro di sëfoor di bokk ci kër sëñ Balla Coro jur ña indi sëriñ bi Touba muy sëñ Mat Lamin Jóob Dagana sëñ Seex Xari Jeng Jóob sëñ Maxtaar Silla bëkk nekk Mouhamadan Tandaxi sëriñ Basiru juróom yii ak dut si sama ko a dalal muy juróom benn yi indi sëñ bi Touba sëñ Basiru nga xam ne moo jiite convoi boobu ndax sëñ Mourou Moussa demul dégg naa ci Baye sax fa Tàkk Jóob mu ne keroog yéegoon naa sëñ Mourou Moussa mën a wàcc ñu des ci kër gi kon waxtu woowee ñu indi sëriñ bi Touba ba ñuy indi sëñ bi Touba yàlla dogal na it sëñ Basiru moo indi sëñ bi Touba waaye keroog suñ borom dogalee itam Euh, maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi ko eh, njaarim eh, mooy ci ñetti fan tam xarit yi bis ni ki tey Cheikh Mouhamadou Bachir fanaan moom it moom mooy ci indi Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall ci kanamu ku tedd kii di Cheikhul Khadim wax nañ ne biñ dikkee tuubaa itam bi nga xam ne loola am na nga xam ne sans borom dogal na dem gi am na bañ indi ko Touba te mi ngi fekk raay bi egseegut njaarim booba toll nañ dara waaye Cheikh Ibrahima Fall barkeelu na ca wax naa léegi daal di dem tàggatoo ak ñoom. bi yàlla dogalee nag ñuy egsi ñu egsi Touba mag ñi nee nañ que sëñ Fallou lañ ko fanaanal loolu dégg naa ko ñu ne que sëñ Fallou lañ ko fanaanal dégg naa ci làmm ñu bàyyi Moustapha Seck mu wax ma ne ma ku ñuy wax yaay Fat Diagne wala yaay Astu Diagne moo ko ko nettali nee na ko keroog bi ñuy indi saamam Cheikh dafa fekk maa aye njëlul sëñ Fallou nee na togg añ togg reer nee na coono yi jàpp ma ma ma gëmmentu ma nelaw nee na ci fajar gi may wut mattu mattam poftan mu ma tàngale café nee na séen ci biir mbaar mi luñ sànge luñ tëral sàng ko mbàjjum leen nee na ma ñëw ci kenn ci soxna yi nga xam ne ci samay ci mag ñi la bokk mooy moo ma fa jiitu ma ne ko waaw lii ma séen ci biir ñu sàng ko moom lu mu doon ma ne ma santal yàlla samaam Seex Ibra Faal lañ fi indi bii santal yàlla samaam Seex Ibra Faal lañ fi indi bii bañ xëyee itam mag ñi nee nañ ñu waajaloon fii ñu denc ku tedd ki Serigne Touba Seexul bi ngir denc ko fa bi loolaw amee ndekete sëñ Basi ndekete sëñ Mat Lamin Jóob Dagana wala boog euh, maanaam sëñ Daam Abdourahman Lo ak sëñ Ahmadou Ndumbe sëriñ Daam Abdourahman Lo ak sëñ Ahmadou Ndumbe ndekete ñoom la dénkoon bopp dénkoon na leen boppam pour wax leen moo fi jógee barab baa nga ne ndax fii ñu ko denc tey mooy jàkk ji sëñ Touba njëkk julli ci Touba ku la ko laaj mooy neer barabu Cheikh Ibra ba mu fa jullee la ko ne dénk naa la barab bi na nga ko wormaal Cheikh Ibra dagg bant samp ko fa keroog ba mu fi bàyyi ko bañ laajee sëñ Daam Abdourahmane la sëñ Mandumbe la joxañ daan na bis day ànd nañ ba xee mu samp fa bant daan na kenn bu ko yàlla dogalee fi mooy daara ji loole Cheikh Ibra itam joxe woon ndigal ne lépp luñ denc ku tedd ki ci biir suuf nañ ko def gub lel ay yoon ay yoon ba mu gën a xóot ci biir suuf ngir ñu denc ko fa ndax du féete sëñ Tuubaa kaw loola sëñ Modou Mbenda la ko la ko la ko la la ko dénkoon gis naa sëñ Modou Ablaye wax na sëñ Modou Mbenda ko nettali maa nga ca waxtaanu Mouride Sadikh te loolu it firnde li mooy eh, mag ñi fekke denc ba wax nañ ne fañ ko denc tànk mënu ko pour mu teg fa tànkam ci suuf jafe jafe woon na lool ndax xóotaay te moo ko santaane woon bi ci des it mooy lam ñaanoon yàlla ngir ngir gën a suufe ku tedd ki mooy féete ko suuf loolu yàlla defal na ko ndax tey boo taxee fii ci barabu ku tedd ki di Serigne Touba Cheikhul Khadim boo xoolee armée li Touba yi aw xur lay doon ci yow kon day mel ne sëñ Bamba nga ci tund ba waaye Cheikh Rafal nga ci xur ba loolu la santoon loolu la santoon loolu la santaane woon kon nag noo ngi ñaan sunu borom mu dolli ko ay leer dolli ko ay ngërëm eh, taas wi ci barkem yàggal fi njabootam gii la ko dale ci Serigne Cheikh jëm ba ci ñi nga xam ne kenn ku ci nekk tey yaa fi nekkal sa wéyjur di doomi Cheikh Ibra muy góor muy jigéen yàggal fi itam mag ñi nga xam ne Cheikh Ibrahima lañ àndaloon di liggéey liggéey te sans borom dogal ñu joxewoon ko seen bopp mooy ña ko tàmbalee ca Gànjul ba ci ñi xam ne Cheikh Mour Moustapha Fall leen wàcc ci daara ji ndax keroog ba muy tàggatoo mag ñi eh, dégg naa ci làmmiñu euh, Baye Moustapha Seck dégg ci làmmiñu Baye Amdi Ñang Baye Amdi Ñang ci gébb moo wax ma ne ma bàyyam keroog wax ne eh, ah, eh, Cheikh Ñang ma ne mu ne Fall mu ne diw am na ngërëm la yàlla gërëm naa ko wàcc naa ko Cheikh Ñang nee ma ne Fall mu ne ma diw am na ngërëm la yàlla wàcc naa Cheikh Ñang nee ma ne Fall mu ma diw am na ngërëmal yàlla wàcce naa ko waaye seex Ñang nee ma ne Fall mu ne ma diw ak diw ak diw am nañ ngërëmal yàlla waaye wàcce gu ma leen Moustapha Fall dana leen wàcc ñoo ñooy nag nga xam ne ci mag ñu mujj ñi lañ bokk ñoo ngi ñaan sunu borom mbooleem ku fi nekk tey eh, toogal leen fi di jëfe ndigal li nga xam ne bàyyi nañ ko fi te mooy la Cheikh ba tegoon seen loxo